mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi war a jël tey ay bi jëkk ci suratu shura alarba ji nga xam ne mooy fukki fan ak juróom ci rabiul awwal ci weeru lislaam bi 1438 mu tombee calendrier nasaraan bi nga xam ne ñoo nit ñu ngi ko def 15 décembre ci tey la 14 waaw naam maa ngi jum kon tey la 14 ci ñaari weer yëpp 14 ci rabiul awwal 14 ci décembre ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgal ñu bokk ci ay jaamam yu bàyyi seeni itte ñëw daje ci am néegam fa seeni jàng ab téeréem lépp lu ci ngëneel yu ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax yal na yàlla jagleel ñu ko yal na yàlla nangul ñu ko àdduna ak alaxira kon incha allah dañuy bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم سبحانه وتعالى مني حاميم عين سين قاف مم خملا لتجبل كذلك يوحي إليك نكني دي لني وحي جمتي يوم wax yu mooy ngay xamal ka ngay xamal ci mbir moo xam ne ci secret lay doon wa ila alladina min qablik nii lañ ko wax yoo woon ca ñale fi jiitu woon kaka def mooy allahu alazizu alxakim yàlla mi nga xam ni mooy ki not lépp mooy ki xereñe ci jëfam yépp lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na ko lépp lu nekk ci asamaan yi ak lépp lu nekk ci suuf wa huwa al aliyu al azim mooy aji kawe ji mooy aji ku màgg ki rëy ki jalla wa ala takaadu samawat xaw na day asamaan ya yatafattarna min fawqihinna nekk di xotteeku jóge ca kaw mi ngi noonu wal malaikatu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim malaaka yi ñoom ña ngay sabbaal ci seen cantuk boroom di ko sellal ci di ko sant wa yastaxfiruuna liman fi l ard boole ci ak di jéggalul ña nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf ala la nga xam ne mooy li am day inna allaha huwa alghafuru rahim sa borom yàlla mooy kiy jéggale mooy kiy yërëm maate walladina taxasu min dunihi awliya ña nga xam ne nag dañuy jël gannaaw yàlla moomu ay aji ñu ñuy féetewoo allahu xafizun alayhim yàlla mooy aji wattu ci ñoom wa ma anta alayhim bi wakil yow nag nekkoo ci koo xam ne dañ lay sant nga leen di taxawu mi ngi noonu mbokk saar bi bi suratu shura mi ngi bokk ci juróom ñaari saar yu suñu borom tegale bu nekk mu ubbeekoo xaamiin donte ni fii mi ngi ci dolli ayn sin qaaf bokk na lu ci borom xam-xam yi wax bari na allahuma am na lu ci xel gën a nangu mooy fu ko suñu borom waxee rek lam cay teg mooy day défendre ab téeréem moo tax fii mu ne kazalika yuuhi ilayk mi ngi noonu pour wan arab yi ne leen comme nee ngeen muhammad kat lii ay waxam la lettre yi muy jëfandikoo mi ngi nii alif a ngi nii laam miim ayn siin qaaf saad taaha ila axiri jël leen ngeen bind lu mel ne alquran donte ne ni la gën a mucc mooy sunu borom moo gën a xam lu mu ca jublu suñ borom mu ne maa la waxyu ay maa la xamal nu ma bëgg jaami jaamoo ma ko te loolu ay façon yu bari la buñ demee ba saar bi jeex suñu borom danañu ci wax yenn na suñu borom di yónni malaaka mu ñu wax ak yonentam wala mu wan ko ko ci ay gént wala ci ay yeneen façon yoo xam ne daana dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu mel ne ay cloche koy wër mu tar ci moom lool ala kulli xaal daanaa la waxyu te mooy wax ak yow ci loo xam ne maag yow rek a ko yëg yonent bi danaan nekk ci digg saxaaba yi ba mujj waxyu di wàcc ci moom saxaaba yépp xam ko ba bu doon jamono sedd day ñaqtooy xib su paree mu doog a nettali la yàlla wax ak moom nii laa la ko defale defal ko ñali fi jiitu woon dana leen am na ñenn ñu ci tudd ci kanam nuux ibrahim ila axiri waaye muy wane it ne ña ka jiitu woon la wax yu waaye gannaaw yonent bi alayhi salaam ndax yàlla dana wax yu keneen laa wallahi ah waaye da nga ñëwlu Sénégal rek mu naan boo ñëwul Sénégal day fekk fi ñu yàlla wax yu ñu bëree bëree bëri waaye mbokk loolu wallahi amut amut imma nit wax ko seytaane moo ko feeñu wala ay nit créé dóoral ko doomu aadama ndax ñooñu ñuy wax ay yonent lañu am na ca ñoo xam ne bañu dee lañ commencé di leen wax ne ay yonent lañu loolu am na waaye ala kulli xaal gëmal ne gannaaw suñu yonent yàlla muhammad yàlla lootu wax yu keneen abadan mi ngi noonu abdullah ibn omar ñëw nañ ci moom na ko waaw sa mbokk ma muxtaar day nee na dañ koo waxyu mu ne ah mbalu da ngeen koo weddi ñu ne ah ñun dañoo foogoon ne yonent yàlla muhammad mooy xaatama nabiyin mu ne waaw ibn omar da leen xanaa di ngeen a jàngul la yàlla subhanahu wa taala di wax ca an'am shayatin al ins wal jinni yuuhi ba'duhum ila ba'din zuxrufa al qawli gurura mooy seytaane yi day da ngay gis ne ña nga xam ne ñoo ci ay nit seytaane jinne ya daan ñëw di leen wax yu di wax ak ñoom loolu kon mbokk loo rek moo am waaye wax yu gu bawoo ci yàlla loolu abadan mënatu la nekk wala boog dootu nekk suñu borom yàlla ne muy al aziz aziz mooy ki nga xam ne lu mu bëgg a def kenn mënu ko ko tee def kenn mënu ko ko tee def moo te amul kenn ko mën a def lu ko neexul ndax mooy ko noon ñëpp waaye kattan googu moo am da caa boole xakim al xikma mooy wadul asya fi mawaadi'iha lu na rek yàlla teg na ko na mu war a tege bu dee lim bind lépp xikma la commencé ci yow doomu aadama xoolal ni la yàlla bindee ndax am nga loo ci mën a corriger abadan ku mën a wax doomu aadama bu ay bëtam féete woon benn kanam benn gannaaw lay gën a rafet ba chaque kenn du wax loolu tànk yi bu féete woon kaw loxo yi féete suuf laa kenn du wax loolu gémmiñ bi bu nekkoon ci biir bi lay gën a baax kenn du wax loolu ila axiri naka noonu it mbokk ay tëralinam lépp xikma la lépp lu yàlla atte ci ay jaamam borom xel du ci wax budul woon ak lii abadan mboolem borom xel yi rafet xel dëppoo nañoo ak atte yàlla subhanahu wa taala mooy alxakim borom boobu nag asamaan yi mu bind suuf gi mu bind ñoom ñépp am na yëg-yëg bu mu def ci ñoom yëg-yëg boobu di leen jokkale ak seen borom looloo tax dañuy sabbal yàlla doonte ne xamuñu nuñ koy sabbale man mii di wax ak yéen portable bi mi ngi enregistré donte man xamu nu muy enregistré waaye wóor na ma ne mi ngi enregistré moom te bu pare mën na ko nett bi suñu borom mu ne comprendre leen ni ñuy sabbale ne ñoom ñëpp ñu ngi sabbaal looloo tax yëg googu ñu yëg yàlla màgg na ci ñoom ba léeg-léeg dañuy waaj a exploser comme ni suñu borom wax law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah bal wa suñu borom nee na su ma wàccoon alquran da nga koy gis mu toroxlu ba explosé bal da ngay gis suñu borom mu ne wa inna minha la ma yahbitu min khashyatillah léegi la nga gis montagne bu dem mujj rek am lu ca fàq na bëpp ngir ragal gam ragal yàlla te moo ne lay mbokk montagne du sàcc du jëw du njaaloo du def lu bon mais ragal yàlla tax na muy xam ana yow doomu aadama gis ngeen su ko defee borom bi nee na màggaayu yàlla dana tax ñuy xar doonte ne am na leneen lu taxoon ñu bëgg xarit mooy duural gi doomu aadama yi duural yàlla subhanahu wa taala doom am déet da yàlla ko wax day wa qaalu ittaxaza rahmaanu walada laqad jitum shay'an idda lu ci yàlla teg takaadu samawaati yatafattarna minhu wa tanshaqu al ardu wa taxirru al jibalu hëdda an daaw li rahmaani walada bi doomu aadama ne yàlla am na doom moom asamaan tiit na bay waaj a xar min fawqihinna asamaanu juróom-ñaar dal ci juróom-benn mu dal ci juróom ba ci benneel suuf xaw na xar mëdd leen montagne yépp daal di tóoru ngiree doomu aadama am fitu naan yàlla am na doom gis ngeen borom bi daal di ci dolli ni waaye malaaka yi ñu ngi sabbaal seen cantoog borom sabbixoon ay ñi ngi sellalal yàlla ci lépp loo xam ne lu doomu aadama yi ak jinne yi di duural suñu boroom ñi ngi ko ci sellal waaye àndal di ko sant ay mooy di ko saxalal mboole mi melokaan yu rafet ak jëf yu tedd ak xéewal yu muy xéewal ay jaamam te loolu mbokk mooy dajale lépp mooy subhanallah mooy firi sellal nga yàlla ci lépp mànkite alhamdulillah mooy saxangal saxalal nga yàlla ci gépp mat ci wàllu gu nekk loolu bokk na lu koy tënk mooy subhanallah wa bihamdihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne day boo xëyoon def ci téeméer guddi nga def ci téeméer kenn du la gën a rafet jëf yowmal qiyaama say bakkaar buñ bëri woon na pour ti géej yàlla baal la ko ca wallahi mbakkoo ba essayé ko matul deux minutes essayé ko matul deux minutes subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi da nga am santé du ma deux minutes ndax chaque seconde presque mën nga cee def benn loolu comme ñi bañ koy saggane subhanallah wa bihamdihi boo jullee fajar defal boo jullee timis defal di ko def suba gi di ko def guddi gi loolu malaaka yi ñoom dañ koo saxoo malaaka du lekk du naan du noyyi ñoom dañuy sabbal yusabbihuna layla wa nahar la yafturun duñu dog mukk waaye boo la ci yastaxfiruuna li man fi l ard ñi ngi ñaan yàlla jéggal waa suuf ndax kat bu dul woon ak jéggalug yàlla ma taraka alayha min daaba doomu aadama yi bàkkaar yi ñu def bu ci yàlla boo dul jéggalam ñun ñëpp la yàlla di faagagal alak leen waaye yastaxfiruuna li man fi l ard sunu borom mu ne mooy jéggale mooy yërëmaate mbokk malaaka yi bokkuñu melokaan bokkuñu genre et pourtant day yëg gu ñu yëg la nga xamee ni nii mooy doomu aadama ko gàttan lu la tax na ñuy ñaan yàlla jéggal leen loolu la ñu war a ne yow julit gan la waaye del ñaan yàlla jéggal la waaye jéggal doomu aadama yi ay jéggal sa mbokk julit yi looloo tax am na ñaan gu gàtt baril di ko wax ay rabbi xfir lii wali walidayya walil muminina wal muminat yàlla yàlla nag ma jéggal jéggal samay waajur jéggal julit yu jigéen yi ak julit yu góor yi mi ngi noonu de ci wax lim bu baree baree baree bari rabbi xfirli wali walidayya walil muminina wal muminat mi ngi noonu sunu borom mu ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbika walil muminina wal muminat xamal ne yàlla kese yoo ñu koy jaamu del jéggulu say bakkaar cay jéggulul jullit ñu góor ñi ak jigéen ñi jullit ñu jigéen ñi mi ngi noonu suñu borom yàlla mu ne ñi nga xam ne nag dañoo jël gannaaw yàlla ñu ñuy féete woo ñooñu de yàlla moo leen di sàmm yow kenn sant la nga taxawu leen boo ko am na ci nit ñi ñoo xam ne defuñu yàlla muy seen kilifa ndigali keneen la ñuy jiital ci ndigalu yàlla dañu noonu képp koo xam ne li yàlla santaane ci julli yi ci koor yi ci acte yi ci la nga xamee ne ni mooy doxalin yi am na keneen ku la ko tere nga bàyyi ko kon yow jëlatoo yàlla muy sa kilifa képp koo xamee ni nii la yàlla tere woon am na keneen ku la ko digal nga def ko koo ko jëlatoo yàlla muy sa kilifa sunu borom nag ne yow yonente bi sant ñu la nga taxaw leen ba baa ñuy def ndigalu yàlla li ñu sant rek mooy jottali leen wa ma anta alayhim bi wakil kon mi ngi noonu ñu bàyyi Cheikh Ousmane وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
barakallahu fiik suñu borom mu ne wa kadhalika awxayna ilayka naka nii lañu wax yoo jëme ci yow qur'aanan arabiya alqur'aani lammiñu arab li tunzira umma alqura ngiree nga man cee waar lii di ndeyi dëkk yi muy makka wa man xawlaha ak la ko wër ci àdduna yépp wa tunzira yowma aljam'i nga xuppaate ci la nga xam ne mooy bisu daje ba laa rayba fiihi benn sikk amul ca loola fariqun fi ljanna benn wàll ca mbindaafan yi nar a jëm àjjana wa fariqun fi sair beneen wàll ga nar a jëm sawara walaw shaa allahu la jaalahum ummatan waxida bu neexoon yàlla mu def leen benn mbooloo benn kese ñu bokk benn doxalin walakin yudxilu man yashaau fi rahmati waaye mooy dugal ku ko neex ca la nga xam ne mooy yërmandeem wa zalimuuna ma lahum min waliyin wala nasir amma tooñkat ya du leen ñeel ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali am ittaxasu min dunihi awliya amoon ndax nit ñi dañoo jël gannaaw yàlla ñeneen ñu ñuy féetewoo fallahu huwa alwali yàlla rekk mooy aji féetey dëgg wa huwa yuxyi almawta te moom dong mooy kiy dekkal ñi dee woon wa huwa ala kulli cheyin qadir te mooy ki am kattan ci lépp lu mu mën a doon wa maxtalaftum fihi min cheyin lépp loo xam ne nag wuute ngeen ce ci lu mu mën a doon fa xukmuhu ila allah atteb loolu day ma ngay dellu ca yàlla zalikum allahu rabbi kooku day mooy yàlla mi sama boroom alayhi tawakkaltu ci moom laay wékk sama mbir yépp wa ilayhi unib ci moom it laay dellu ci sama mbir yépp mi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ne yow yonent bi maa la wax yu ci yow alquran joo xam ne ci lammiñu arab laa ko wàccee muy lammiñ bi gën a complet lammiñ bi gën a neex ci li yàlla créé ci ay langue loolu tax nga dégg kuy jàng alquran li muy wax xamoo ci dara mu mën a jooyloo ay doomu aadama ndax neexaayu la yàlla def ci loolu suñu borom yàlla mu ne indi nañ ko ngiree nga waar ci waa makka miy ummul qura nga xam ne mooy ndeyu dëkk yi di capitalu dëkk yi yàlla def ko ci centre un adduna bi mu nekk loo xam ni xiiwulu ñëpp la ndax bu doon makka dafa nekk ci extrême orient ah ay Sibérie kii ay feneen wala ñu nekkoon ay ay Canada wala ay yeneen dana sonal ñu bëri mais fi ko yàlla placé daanaka doomu aadama yépp ñoo yomb ci ñoom ñu mën a dem foofee la wër a Makka mooy adduna ba mu daj képp loolu muy wane la waa Makka ñoom dañoo diggoon arab yàlla wàcce ne leen am ñu arab waaw ñuy wër Makka ci dañu arab nag luy pexe liy pexe mooy war nañoo seeti ñu mën a jàng arab boobu dem jottali seen xeet arab yooyu nekk makka it war nañoo fexe jottali ko ña nga xam ne dégguñu ko ndax ñoom ñépp la yàlla di laaj ëllëg yowmal qiyaama sunu borom yàlla mu ne li tax gën a am solo alxuraan tax a jóg mooy waar nit ñi pour ñu préparer wu al inzaar mooy wax nit ki mu waaj téetal ko ci mu préparer bis bi nga xam ne ci la yàlla di dajale jaamam ay bis bi nga xam ne yàlla dana dekkal sunu bay aadama dekkal lu cosaanoo woon ci moom da doon mille milliards la ñuy doonam deux mille milliards yàlla xam mu dekkal jinne yi dekkal lépp lu faatoon ci ay malaaka dajale leen ci benn place mu yowmal jama boobu nga xam ne benn sikk sàkk amu ca ñeel borom xel yahud yi gëm nañ ko nasaraan yi xëy na li nga xam ne mooy athéisme bi bees léegi ñoom ñoo weddi loolu ak la nga xam ne mooy yéefiri ñu néew ña bokkoon ca waa Makka ak ñeneen sunu borom yàlla subhanahu wa taala ni bu keroogee dañuy xaaj mbooloo mi am na mbooloo mi jëm sawara am na mbooloo mi jëm àjjana gaa yi bu doon mbir mi dañ koy xaaj ay ñu ne bu ñu demee yowmal qiyaama day yàlla dana fa dajale mille milliards ci ay nit cinq cent milliards yee sawara lañ jëm cinq cent milliards yi àddina lañ jëm waaw gars yi ndax loolu dina tax xelu doomu aadama bi dal ci xamagul moom fu mu cay bokk abadan du tax sa xel dal waaw bu dee ne nag naka yonent bi alayhi salaam nettalee mooy bu dee mille milliards ñoo fa daje neuf cent quatre-vingt-dix-neuf milliards yépp sawara lañ jëm un milliard rek kay tabbi àjjana ma yow jullit nooy def su ko defee mbokk loolu lu war a tiitloo doomu aadama la lu war a tiitloo doomu aadama la mu war koo waajal ca kay séddale muy faalun li ma yurit lu ko neex lay def loolu tax nga war a góor góor góorlu toroxlu sa kemtalal kattan ngiree ni loolay sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ca moo di ne ne mooy séddale ay jaamam ëllëg buy séddale mu boole la ca ya jaamam yi nga xam ne daf leen di dugal ci yërmandeem yal na yàlla boolu ñu ca ñooñee da nga noonu ñu war koo sabablu war ko di ko ñaan fu ñu mën a toll borom bi nag ne su ma neexoon mboolem mbindaa fa ni ma dajala leen ci ngëm tabbaleen ajjana su ma neexoon mboolem mbindaa fa ni ma dajala leen ci kéefër tabbal sawara te laa yusalu ama yafal kenn du koy wax demande d'explication mi ngi noonu am déet yoom yeen suppulaay yi ginnaaw yaa ko moom bu la neexee jaay lépp bu la neexee may lépp bu la neexee rendi lépp lekk am déet ku ñëw naan la da ngaa toon tooñoo ndax yaa moom wañu suñu borom moo moom ay jaamam su ko neexoon mu def leen benn mbooloo waaye li ko neex mooy mu indi ay téeréem yónni ay yonentam may leen xel képp koo xamee ne nii yàlla gis na ci yow préparation mbaax mu dugal la ci yërmandeem yërmandeem jooje mooy islam bi mu lay dëppaleel kaw suuf boo dee mu tabbal la aljanna nga noonu islam bi mu lay dëppale ci kaw suuf boo dee mu tabbala aljanna yërmaande jooju nee na yudxilu man yashaau fi rahmati moo ci dugal ko ko neex alhamdulilahi rabbil alamin ma mbokk julit ndax xam ngeen ne te ji boo demoon ci makka ga yàlla wàcce woon téere bi am na ay yéeféer yoo xam ne nii ñi ngi foofu gëmuñu la nga xamee ne nii moom la sunu borom yàlla wàcce ci ñoom ndax ba yeneen ci bi alayhi salaam di dund it ay naafiq ñu nga woon ak moom ca Madina am déet yàlla mooy def lu ko neex xoolal ci gënoon a sonn ci yonenti yàlla bi ci da'wa bi sikk sàkk amul ne mooy abi taalib am déet moo gënoon a sonn ci moom ci woote bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam mi ngi koy woote waaye yàlla dugalu ko ci yërmandeem ba abi taalib safara la jëm mi ngi noonu safara la jëm lam doon défendre yonent bi lan la ko mën a jëriñ yonent bi nee na danaa ñaan yàlla ñu yëkkati ko teg ko ci kaw sawar utal ko ci ay dàll yuuram nga di bax mu jàpp ne moo gën a tar mbugal ci mbugal ci jaami yàlla yi amma kon ñun yàlla bu ñu yàlla war sëgalee en quatorze siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ diggante ak Makka plus de six mille kilomètres yonent bi doon arab ñun ñu nit ñu ñuul tey ñu toog yeneen ci bi gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay ñu jël ci rëb yàlla bi di ko jàng gars yi war nañ sant yàlla ci loolu fexe dara bañ ñu ko yàqal fexe dara bañ ñu ko yàqal xéewal googu ñu yàlla defal yàlla na yàlla sàmmal ñu ko bañ dajeeg moom yudxilu man yashaa fi rahmati amma tooñkat yi te mooy bokkaalekat yi sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na du ñu am ku leen di féete woo di leen ñoddil njëriñ buñ demee ca musiba ya duñu am ku leen cay ñëw di leen xeccali ca mbokk loolu nañu xam ne am na ci nit ñi ñuy jàpp ne am na ñu leen di xeccali xatta ba ñuy ci biir lislaam da ngay gis ñu ñuy tudd ay xutbu zaman nga xam ne jàpp nañ ne ñooy wër adduna bi di xeccali jaam yi ba tey sa oto bu bëggoon a këpp allubkaan am nga droit ne yaa bilal caam mu daal di ñëw intervenir ndax mi ngi wër ci àdduna bi nekk di intervenir waaye mbokk loolu suñuy lib rek la waaye li wér ci wér mooy allahu huwal wali yàlla kese féetewoo ay jaamam keroog xasootu uhud ba yàlla dogalee ci xikmaam yéeféer yi dàq julit yi dàq julit ñi abu sufiyaan booba yéeféer la taxaw ca kaw tund wa wax ak yonent bi alayhi salaam ak sahaaba yi ci wax ju gudd ba ca fin ba mu ne mi ngi noonu lana uzza wala uzza lakum yéen a weddi diine maam ji ñun ñoo gëm uzza mooy suñu faraloo yéen amu leen uzza yeneen ci bi alayhi salaam ne nay leen ko allahu mawlana wala mawla lakum ñun yàlla mooy suñu féete yéen amu leen ku leen di féete woo ay kon képp koo gëm ne moo lay xettali yaa ko gëm rek waaye mënulu la dara wallahi lu bari ñi ñuy woo fii ña nga ca seen biir bàmmeele yàlla xam luñ fa nekk yàlla xam luñ fa nekk bari na ñu ñuy woo fii jàpp na ñu ngi xett li nit ñi ña nga seen biir bàmmay de yàlla xam lañ fa nekk ñu ngi noonu su ko defee allahul wali yàlla moomu nga xam ne mooy alwali mooy wane li nga xam ne moom danga ko man mooy dundal ñi dee woon yuhyil mawta waaye wa huwa ala kulli shay'in qadir moo am kàttan ci lépp loolu tax yow julit bi gëm sa borom nga la way doy loolu yàlla te xam ne yàlla nee na mën naa lépp looloo tax lu la jaaxal bis ko yàlla moomu am déet lu la jaaxal amoo ca pexe nga la waay dis ko yàlla ab sëy la doom la liggéey la feebar la tumuranke la ah bëgg a dem àjjana la bëgg a mucc ci sawara la bëgg lu mën a doon yàlla jubal sa njaboot la yàlla ilaaxiri mooy lépp loo xam ne doomu aadama lott nga ca sa borom nee na huwal wali allahu waliyu lisina amanu te huwa ala kulli shayin qadir moo am kattan ci lépp kon sa lépp delloo ko yàlla moomu jalla wa ala wa huwa ala kulli shayin qadir borom boobu subhanahu wa taala nag ne lépp loo xam ne wuute ngeen ca atte ba ca yàlla lañ ko war a delloo moo gaa yi Sénégal wuute wuñu jamono ji ci penda moora ñu noonu ndax wuute wuñ ci penda moora ah kay ca moo di ne nit ñépp ngi ciy wax moo am lu metti xol koo xam ne dañ ñey wooy ab sëriñ la nee na ñooy bàyyi ab sëriñ la woon journaliste yi wër ko mu naan non dellu ci peine de mort c'est rétrogradé wu dellu gannaaw ah lépp nit ñi rey ba pare ñu wër tukal rey rey rey ah non non non non loolu xel nanguwul loolu ah loolu mbokk julit nan la ab julit di dem bañ naan ab sëriñ la muy jàngale yàlla subhanahu wa taala wax ci téeréem bu tedd bi wax ko ca ahzab wax ko ca nisaa yi wax ko ca la nga xam ne mooy nuur wax ko ca la nga xam ne mooy maida daa di leeral ci ne dañoo war a atte woo samay atte leeral ne ku rey nit dañ ko war a rey di loolu la yàlla wax de anna nafs bi nafs nga ne déedéet loolu ah loolu du xel loolu dellu gannaaw la mbokk bu doon te ne nee borom costume cravate yi nga xam ne nii tubaab bi rek naan seen ñuur xëy na loolu dañ naan ñoom kat xamuñu waaye koo xam ne ñi ngi naan ab sëriñ nga ñi ngi naan yow jàngkat nga ba pare di wax loolu mësiwu mun ta passé loolu su ko defee mbokk julit ay julit heure bu ñu amee problème bu mu mën a doon la ñuy jëkk a xalaat mooy lu ci yàlla wax yellul ci julit wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara min amrihim daganul ci julit yàlla atte dara ba pare wala yonent yàlla atte dara ba pare ñuy am lu ñuy tànn di hésité sunu borom nee na ku mooy yàlla ak yonent bi réer nga ak réer gu mag balaa julite xalaat lenn masalan bàyyi dee na bala ñoo xalaat lenn lu ñuy jëkk a xalaat alal ji bàyyi bàyyi moom ah imaam lu ci yàlla wax oustaz lu yàlla wax ci alal ji suñ bàyyi bàyyi loolu mooy njëlbeenu xalaat bi jullit waroon a xalaat lépp loo xam ne ñëw na ci suñu wàllu dundoo ci sëy bii di taxaw tas bii di am lu mu mën a doon jullit da ko war a xam xukmuhu ila allah delloo atte bi yàlla su dee ne nag yéeguñu ne lenn lu ci yàlla wax ci alquran ak yeneen ci wax ci ci sunna ñu delloo ko boromi xam-xam yi du loolu la yàlla ko day wa ila ulil amri minhum delloo ko boromi xam-xam ya ñoom ñu def istinbaat xool lañu lan ceete waaye mbokk amuñu droit mi ngi noonu benn réew taxaw ñu tudde leen ay parlementaire assemblée lu mu mën a doon rawatina réew moo xam ne ay jullit ñoo fa ëpp di leen tëralal ay loi yoo xam ne dafa safaanoo ak la yàlla ak yonent bi tëral képp koo xam ne yaa nga ca nga tudd Muhammad wala tudd Fatima nga la waay maa ngi lay woo xamal ne lu mu yàgg-yàgg da nga mas a dee wuji sa boroom mi ngi noonu ña nga sosoon ña sosoon assemblée nationale bi ña ca ëpp boo bu la weexee sax nga ne ñëpp ñu ngi ci biir suuf tey ña sosoon assemblée nationale ñëpp ngi ci biir suuf tey ay monsieur le député monsieur le président xalaatal ëllëg bi nga xamee ne nii daañu di dugal ci biir suuf et la vie continue mi ngi noonu àdduna continue loolu kon na ci ñëpp bàyyi xel mbokk julit wa maxtalaftum fihi min cheyin fa hukmuhu ila allah kooku nag sunu yonente alayhi salaam sunu doon na ko zalikum allahu rabbi kooku mooy yàlla mi nga xam ne mooy sama borom ab jaamam dong laa buy jot bi am déet ilayhi alayhi tawakkaltu sama mbir yépp ci moom laa koy wékk te it ci moom lay dellu ci bu ma jaaxle ci moom lay dellu heure bu may atte ci moom lay dellu heure bu may ñaan ilayhi unib mi ngi noonu Cheikh Ousmane فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما على المشركين ما تدعوهم إليه الله يبتغي إليه من
barakallahu fiik suñu borom mu ne faatiru samawati wal ard mooy ki bind sos asamaan yi ak suuf jaala lakum min anfusikum azwaja moo def ñeel leen ci seeni bakkan yi ay peer ay bu dee góor moo leen defal jigéen bu dee jigéen moo leen defal ay góor wa min al an'ami azwaja moo def ca jurga la nga xam ne mooy ay peer yazra'ukum fiihi di leen tasaare ci peer yooyee ay ji génne ci góor ak jigéen di tasaare di bind di tasaare laysa ka mislihi shay'un moom nag dara melul ne moom waaye wa huwa samiul basir mooy aji dégg ji di aji gis lépp lahu maqalidu sama mu ngi noonu mooy dégg lépp di gis lépp lahu maqalidu samawati wal ard dana ko ñeel li nga xam ne mooy caabi asamaan yi ak suuf yabsutu rizqa liman yashaau wa yaqdir mooy tàllal wërsëg ñeel ku ko soob moo koy gàttalit innahu bi kulli shay'in alim ndax moom bépp mbir mooy ka ko xam sharaa lakum min ad-diini ma wassa bihi nuuha yoonal na ñeel leen ci diine ji la mu dénkoon yonent yàlla nuux wala zi awxayna ilayk ak li nga xam ne wahyu nañ ko jëme ci yow wa ma wassayna bihi ibrahim wa muusa wa isa ak la nga xam ne dénkoon nañ ko ñetti yonent yooyee an aqimu diina wala tatafarraqu fiihi liñ leen santoon mooy taxawal leen diine waaye bu leen teqali ko ci diine joojee kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi dana màgg lool ca bokkaalekat ya la nga xam ne moom nga leen woo jëme ca allahu yajtabi ilayhi man yasha yàlla day mooy tànn jëme ci moom ku ko soob wa yahdi ilayhi man yunib waaye du jubal jëme ci moom képp koy dellu ci moom ni ngeen woon mbokk suñu borom mu ne moo bind asamaan yi ak suuf ca mbokk la chaq suñu borom moom gisuñu ko waaye heure boo génnee nga xool asamaan nga xool biddiw yi demal géej nga xool xoolul jaww ji nga xool lii kan moo ko fi def suñu borom yàlla moo ko fi def dana la won kàttanam wan la xikmaam mi ngi noonu gannaaw ba xoolal li nga gis ci ay doomu aadama ci ay nit ak i jinne ma subhanallah ci ay góor ak i jigéen ay góor ak jigéen yi nga xam ne yaa ngi leen gis ku nekk suñu borom yàlla moo ko bind loolu ci mbaaxam ak xéewalam ngir tasaare ñu ci loolu muy comme ni mu koy defee ci baajuma yi loolu muy wane ne bokk na ñoo xam ne waxuma noonu diine lañu waaye noonu humanité lañu noonu nité lañu mooy say-say su bon soosu nga xam ne dañoo jàpp ne góor day am na droit bàyyi fa jigéen ña sax ànd ak moroomu góoram ci ab sëy jigéen ñi it am nañ droit bàyyi seeni moroom yi góor sax ñoom ci seen biir mbokk ñooñu bu leen ñépp wuyu woon seen woote boobu bala ñu fay def soixante dix ans kenn dootu dox ci kaw suuf am déet mi ngi noonu kon suñu borom yàlla ci kattanam lay defe loolu di bind di tasaar yóbbu ñuy Chine yóbbu ñuy fële Amérique yóbbu ñuy Afrique yóbbu ñuy fenn di bind di tasaar yazra'ukum fii moom ci boppam nag mu ne laysa kamislihi shay dara melul ne moom loolu tax mbokk suñu borom yàlla dañuy xam ne dara melul ne moom doo xalaat mukk ba jàpp ni nii la yàlla war a mel loolu nag du tee ñu saxalal ko lam saxalal boppam yàlla nee na am na kanam yàlla am na kanam nu kanam nga mel xamuñu yàlla am na loxo yàlla am na loxo nu loxo ba mel xamuñu gannaaw mu saxalal boppam ne samiul basir yàlla mu ne damay dégg damay gis kon kay am na nopp nu nopp ba mel xamuñu day gis nu bët ya mel xamuñu loolee lu julit war a gëm mooy saxalal yàlla lam saxalal boppam amaa naka nag loolu di doomu aadama du wax loolu qissa imaamu malik yéen ñëpp yàgg ngeen ko dégg ci li ma jàpp ba mu toogee ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale benn waay ñëw ci moom na ko waa malik yàlla nee na dafa toog ci kaw arasham ba yàlla nu mu toogee ci kaw arasham ba imaamu malik ndax ku la gën a xam yàlla gën la ko ragal ñu ne mi ngi sëggee ñaqatooy xépp xépp ba mujj mu sëggi daal dina ko toogaay nit ñi xam nañ ko mais naka la loolu kenn xamu ko ay naka la yëkk yàlla def loolu kenn xamuñu ko mi ngi noonu al istiwa maalum wala kayfiyatu majhul loolu kenn xamu ko mu ne ko nag laaj bi laaj bu biddaa la bu ñu sos sahabatul kiram musuñoo laaj yonent yàlla bi nu yàlla tooga ca arasham ba mi ngi noonu kon daa ji ne yow mii nitu fitna la daa ji ne xale yi fi nekkoon kii nañ ko génne jàkka ci kon mbokk loolu kenn du ko laaj nu yàlla mel kenn du ko laaj yàlla dañuy xalaat ci kaw téefam inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wan nahaar li yàlla bind ci ngay xalaat xam ci màggaaya mais moom doo toog di xalaat ci moom da nga noonu masal leen léebal fi benn lépp xaaral ñu léebaat ko mooy di xale yi gars yi bind ci seen livre yi ne nañ rab bi ganaar dafa ñëw na ko rabbal ma ab sér ah mu ñëw di rabb déedéet ñayee jëkk a ñëw na ko rabbal ma sér muy rabbal ñay ab séram te su bëgg ginaar ñëw na ko rabbal ma dama bëgg nga rabbal ma tey ab sér mu ne ko déet ñay laay rabbal sér mu ne ko déedéet da nga may rabbal sonal rabb bi ba mu bàyyi mbubbu ñay commencé rabbal ginaar ah ci su bëgg a gi ñay ñëwaat na ko waa rabb ana sa mu sér mu ne ko man di ginaar yi fi ñëw sonal ma wit ba ma bàyyi sa séddi karabal siram mu ne ko waaw ginaar moom nu mu toll xanaa ginaar daa war a rëy lool mu ne ko déedéet ba mu koy daa bëri solo rek ñay na ko ha mu ne waaw ñay daal di fay nefere aw nefere daa di dem bi ginaar ñëwee fekk rab bi toog di defaraat mbubb ñay mu ne ko yow wax sama sama mbubb bi tax rabboo ko mu ne ko ñay lay rabbal mu ne ko koy ñay mu ne ko moo fi nefere nefere bii ganaar xool nefere bi nefere bi tiim ko mu ne ko rabbal ko daal di daw yaa ngi dégg musul gis ñay waaye comme gis na di ñay def rek xam ne na ñay moom kii la ah suñu borom nag mbokk laysa ka mislihi shay wa subhanallah amul kuñ koy mingaleen waaye yàlla gisoo ko waaye boo xalaatee ci lépp xalaat ci sa bopp xalaat ne man mii day mas naa nekk ab liir et pourtant mu ne man mii day na mas naa nekk sama biiru yaay mas naa fa nekk lumbu deret mas naa fa nekk dana toq ndox yàlla ma jël di ma métamorphosé di ma wëlbati di ma wëlbati ba ma mel nii yàlla moom borom xikma la de am de yàlla mi samp montagne yi yàlla mi yëkkati jant bi ila axiri kon huwa samiul basir loolu la jaam war a gëm ci moom borom boobu nag nee na mooy ki nga xam ne mboolem li nga xam ne mooy caabi asamaan ak suuf ci loxoom la rek mooy tàllal wërsëg ñeel ku ko soob na doon kooku julit la yéeféer la xaritam la noonam la mooy def lu ko neex mooy gàttal wërsëg ku ko soob ci ay xaritam yu baax yàlla gàttal seen wërsëg ci ay noonam yàlla gàttal seen wërsëg loolu xikmaam la su ko defee yow julit lan moo lay war ci loolu ñun ñëpp dañoo war a sabablu waaye boo sababloo am nga delloo cant yi yàlla am déet xam ne ku la dàq jàng fuuf ëpp lay pexe fuuf gën laa farlu fuuf mënul am sax un centième li nga am am déet waaye boo sababloo itamit amoo nga sant yàlla ndax kat mën na am boo amoon bew génn ci diine am déet ndax yàlla rek a xam su ko defee santal yàlla foo mën a toll alhamdulilah ala kulli xaal yàlla mu ne innahu bi kulli shay'in alim yàlla xam yow xamoo bari nañu bari keroog ba yàlla yaatalee seen wërsëg lañ génne ci diine lañ sàggane seen diine lañ bew xeeb doomu aadama yi loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax innahu bi kulli shay'in alim borom boobu nag nee na moo tëral ci diine ji loo xam ne nii moom la joxoon Nuux jox ko Ibrahim Muusa Isa ñii mooy ñeenti yonent yi gën a mag ci yonent yi jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki leen juróomeel muy suñu yonent ñooñu la ñuy tudde ulul azmi min rusul moom la yàlla lay wax ca suratul ahzab is axazna min nabiyina misaqahum mi ngi noonu juróom ñii ñooy ñi gën a màgg yàlla mu ne joxoon naa leen diine na leen taxawal leen diine ci taxawal diine mooy jàngale ko na ko yàlla bëgg bu leen ca yokk bu leen ca wàññi ca bu leen teqalikoo ci diine ji wala tatafarraqu fihi mbokk yàlla daa bëgg ñu jaamu ko moom rek bëgg ñu booloo ci jaamu ko bu ñu teqali ko léegi-léeg nga dégg koy woote naan dañoo war a booloo dañoo war a booloo mbokk dañoo war a booloo mais ci lu ñuy booloo suñu borom yàlla def ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'uhu subula yoon baa ngi nii sama yoon jëm ko topp leen ko bu leen topp ñenn yi mais tey bu waaye daggee fa la ca làng ga ne man kat yonent yàlla muhammad ñëw na jox na ma loo xamee ni nii ña ko jiitu woon sax amuñu kee dagg fa la ndéet man kay yonent bi jox na ma nangam kee dagg fee yonent bi jox na ma nangam nu ñu mën a booloo sooy jàpp ne li nga yor moo gën la ke yor nu ñu mën a booloo su ko defee mbokk booloo du mën a nekk lu dul ñun ñëpp ñu delloowaat ca datt ba delloowaat ca la nga xam ne ca la abubakar ak omar ak usman nekkoon ak ali te mooy sax ca la yonent bi alayhi salaam indi woon rek yem ca lépp loo xam ne daf caa dolli ko gannaaw boo ñu bàyyi ko li rek mooy mën a tax ñu booloo wala tatafarraqu fii suñu borom nag nee na naam suñu borom mu ne waaw suñu borom mu ne dana màgg ci yéeféer yi ay bokkaalekat yi li nga leen di woo jëme woo jëme ci lan ca mooy ñu wéetal yàlla bañ koo bokkaaleeg dara suñu borom yàlla nag ne bu ci sa xol tàng yow yonent yàlla bi yàllaay jubal ci moom ku ko neex yàllaay mooy tànn ñu ko neex boole leen ci ñim jubal ña nga xam ne ñooy dellu ci moom it moo leen di delloo ci moom ay yow yonent bi loo mën a waaraate waaraate résultat final bi ci yàlla rek lay dellu mi ngi noonu jàll wa ala bismillah
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدي بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
jazakallahu xayra suñu borom kon mu ne wa ma tafarraqu teqalikoo wuñu illa min baadi ma jaahumul ilmu lu dul gannaaw ba mu leen dikkalee xam-xam ba baxiyam baynahum ci bew gu nekk ci seen diggante walawla kalimatun sabaqat min rabbik bu dul woon a kàddu goo xam ne jiitu woon na jóge ci sa boroom ila ajalin musamma ba ci dig boo xam ne bu ñu tudd la ba pare la qudiya baynahum kon doon nañu àtte seen diggante wa inna lazina urisul kitaaba min baadihim ña nga xam ne nag dañ leen a donnaloo téere ba gannaaw yonent yooyee ah la fi shakkin minhu murib ñoom day ñi ngi ci ak sikk sàkka waaye gën jaa tar ci sikk sàkka muy murib ci téere boobee fa lizalika ngiri lii ma la tëralal faddu na nga woote wastaqim kama umirta ca nga jub comme ni ma la ko digale comme niñ la ko digale wala tattabi ahwaahum bu topp seeni bànneex wa qul amantu bima anzala allahu min kitab neel man di gëm naa ci li nga xam ne yàlla wàcce na ko ci téere wa umirtu li aadila baynakum digal nañ ma ma maandu ci seen diggante allahu rabbuna wa rabbukum yàllaay suñu borom di seen borom lana amaluna wa lakum amalukum danañu ñeel suñuy jëf yéen it dana leen ñeel seeni jëf la xujjata baynana benn lay du nekk suñu diggante wa baynakum ak seen diggante allahu yajma'u baynana ndax yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi almasir te ci moom li lépp di dellu mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne nit ñi day wuute wuñu wuute bu tar lu dul gannaaw ba leen xam-xam dikkale ngiree bew gu nekk ci ñoom nga xam ngeen doomu aadama yi am na ci seen wuute lu ci ëpp daan daje ci kéeféer amma bu yoonu njub ñëwee ca la ñuy commencé di wuute la ëpp ci ñoom nag xam nañu dëgg waaye bewee tax duñ ca jàpp mooy ñetti groupe yooyu nga gis ca fatiha almaghdubi alayhim wala dolin képp koo xam ne yoonu dëgg leer na ci yow nga bañ caa jaar yaa nga bokk ci almaghdubi alayhim te ña ca jiitu woon mooy alyahud suñ borom yàlla it bi mu yónnee suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca makka ñoom ñëpp wala la ëpp ca ñoom xamoon nañ ni kii yàllaa ko yónni commencé ci abi taalib boobu ma leen doon wax sànq da ko daan tagg xam ne ne ne diine yi munta rafet gënta rafet diine yi muhammad waaye dafa jàppoon na bu ko toppee loolu ak caarit la mag ñi dañ koy xeeb ba tax mu dee ci ak kéeféer borom boobu subhanahu wa taala nag ne dafa am dig bu yàlla tudd ne bu dul woon ak loola mu àtte jaam yi waaye mbokk yàlla yàkkamtiwul ndax wala fi ñu naan sàcc bu dul raw jarte yàqi nelaw mi ngi noonu su ko defee it doomu aadama yi yàlla wutal na leen dig bu ñu war a daje bu yowmal qiyaama waaye képp kenn ci ñoom yàlla wutal na ko dig bu mu war a faatoo dig boobu tànk ñëwagul bu la neexee neel maa yàlla bu la neexee rayal bu la neexee sàccal bu la neexee bayil julli loolu neex defal waaye suñu borom moom du la yàkkamti ci dara ndax dig baa ngi ñëw te mënuloo ko changer benn heure borom boobu subhanahu wa taala ni ñi nga xam ne donn nañ téere yi ay gannaaw yonent yooye doon al yahud wa nasaraan wala yéeféer yi de manière générale ñoom ñëpp dañoo nekk di sikk sàkka gën jaatar ci sikk sakka ca la nga xam ne mooy téere bi ca bokk na lu gën a métti ci doomu aadama mooy ak sikk sakk li nga weddi moom weddi nga ko li nga gëm gëm nga ko mais sikk sakk moo gën a tar ci doomu aadama amma suñu borom yowmal qiyaama ña doon sikk sàkk ak ñi weddi woon ñoom lay yemele ci biir sawara jamia am déet inna allaha jaamiul munafiqina wal kuffaara fi jahannama jamia ñoom ñëpp ñooy bokk dem sawara bi loolu pare suñu borom indi benn aaya boo xam ne mooy tëj suñu dars bi mboolem alxuraan ba mu jeex ayatul kursi rek ci mel na moom ayatul kursi kese moo ci mel na moom muy benn aaya bu ëmb fukki ndigal fukki ndigal ndigal bu njëkk bi suñu borom dana ko fali zalika fadu ngiree lii ma la xamal ci sa diine ji wooteel moo ko woote boobu yonent bi ma nga ca woon waaye ku gëm yonent bi da ngaa war a bokk ci ñuy woote am déet woote jëme fan woote ci yoonu njëb ñetti jiitu mooy sa njaboot fadu del woote waaye woote boobu nag ndax da ngay woote fàtte sa bopp déedéet fas ñaareelu mooy wastaqim kama umirta na nga jub comme niñ la ko digale muy wane ne nekkate woote bii du xalaatu yonent bi alayhi salaam ay ndigal yàlla la ñuy jottali am déet fastaqim lan mooy istiqaama mooy diine yàlla ji bu ci yokk bu ci wàññi te borom xam-xam yi dañ naan wàññi diine yàlla ji moo gën a yokk diine yàlla ji ki nga xam ne daa wàññi diine yàlla ji moom day jàpp ne xëy na moom li may def nii baaxul masalan ki bàyyi julli bàyyi koor mën naa xalaat ne man daal li may def baaxul amma ki nga xam ne da caa yokk muy ay bidaa moom day jàpp ne lii moom moo gën li fi nekkoon am déet te loolu musiba munta paase loolu su ko defee al istiqaama mooy yemal fi la yàlla yemloo fi ngi noonu tey jii boo gisee autoroute bi ku nekk lañ koy tëral aw yoon fu muy jaar ngi noonu bu accident amee bu dañu naan kii bàyyi yoonam jaar fi moo tooñ am déet kon fastaqim kama umirta tegeel ci yoon yi comme niñ la ko sante bu ci yokk bu ci wàññi muy ñaareel bi ñetteel bi mooy wala tattabi ahwaahum bul topp bànneexu yéeféer yi nga la way jullit xoolal luy bànneexu yéeféer yi bu ko topp bokk na ci peine de mort bi sonal Sénégal witt mi ngi noonu ba suñu mbokk ba Abdou Aziz Touré nee na am na benn maire bu la ko man day peine ak mort xamu luñ jote lu ma dégg rek rajo yi fu ñu ubbi rek ñu ngi naan peine ak mort peine ak mort man da xamu luñ jote yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk nañu xam ne loolu bànneexu nasaraan yàlla jullit du topp bànneexu yéeféer jullit day topp bànneexu boromam mi ngi noonu borom muy ñetteel bi la nga xam ne mooy ñeenteel bi waqul amantu bi ma anzalallahu min kitab neel digal nañ ma ma gëm li yàlla wàcce ci téere mbokk jullit day gëm tawraat day gëm injil mais ndax muy tawraat bi nekk ci loxo yahudi yi wala tawraat bi nekk ci loxo injil yi déedéet mbokk lii nekk ci loxo yahudi yi ñetti mbir la moo ca am benn la ca alquran wax mu dëppoog loolu loolu dañ koy gëm à cent pour cent yàlla waxoon na ko baamu na ko la ci alxuraan weddi dañ koy weddi à cent pour cent la ci alxuraan noppi duñ ko dëggal duñ ko weddi mi ngi noonu loolu dañ koy gëmee gëm nga it ndax day wane ne dañ ko war a gëm jëfe ko tontu li mooy déedéet kenn du ko jëfee ñi ngi jëfee la nga xam ne nii moom la sunu borom yàlla subhanahu wa taala sant ñu ci tiiram bu tedd bi lañu yàlla sant la ñuy jëfe su ko defee téere yépp da nga leen di gëm mais topp wum alxuraan ngay topp téere yépp ngay gëm mais topp alxuraan ngay topp amantu ma anzalallah min kitab la nga xam ne mooy juróomi juróomeel bi mooy wa umirtu li aadila baynakum dañ maa sant ma maandu seen diggante mbokk julit mooy ki maandu diggante yéeféer ak ku dul yéeféer diggante ndeyam ak doomam yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wallahi Fatima sax bu sàkkan damay daga loxoom mi ngi noonu la nga xamee ne ni mooy diini l'islam ba muy diine dëgg dëgg dëgg yahud yi daan dund ci biir l'islam ak chrétiens yi bu ñu ma saan dem ca attekaay ba ñooy bokk yem ñooy bokk yem dañ leen di toog la benn place atte leen ci maanute suñu borom mu ne wala yajrimannakum shan'aanu qawmin ala ala ta'dilu noonoo gi ngeen noonoo ak ay nit bu mu tee ngeen maanu seen diggante umirtu li a'dila baynakum amma juróom benneel bi suñu borom mu ne war allahu rabbuna wa rabbukum ñi ngi saxal ne yàlla mooy suñu boroom di seen boroom ay yin yahuudi ak nasaraan yi kay leen ñu bokk benn diine ila kalimatin sawain baynana baynakum allah yattaxidu baaduna baadan arbaban min dunillah bu kenn ci ñun di jël keneen ku muy jàpp ne mooy boroomam ñun ñëpp nañ dellu nangu yàlla mooy suñu boroom topp ndigalu yàlla ñu yem ci diine yàlla ji mu bokk ñu ci la nga xamee ni nii moom mooy juróom-ñaareel ba mooy lana amaluna wa lakum amalukum na ngeen xam ni li ñu jëf ñun rek la ñeel ci lu baax li ñu jëf ci lu bon ñun rek la ñeel waaye yii nit lu ngeen def ci lu bon yéen la ñeel lu ngeen def ci lu baax yéen la ñeel loolu mooy li nga xam ne leerul ci bopp nit ñu bëri jàpp nañ ne sëñ diw liggéey na liggéeyalee nañu da ngeen noon liggéey na liggéeyalee nañu sunu mbokk tafsir gasama bi ngi nekk kër ma daaro def ni fii ab conférence ci jàkka ji am na bis mu toog ñu ak ci mbooloo ñuy julli benn waay mi ngi roosa ji woon sànni ay arrosoir am na ah ñu ne sëñ diw julli waa leel nañu mu ne ah sëñ diw de waroon nañoo roose waa leel mu ne ko ah sëñ diw ngay tudd di tudd roose mbir ba mbokk gendarmerie lu mujj gendarmerie lu mujj waaye yow nangoo sëñ diw lekkaaleel la nangoo sëñ diw sa yaa leel la nangoo sëñ diw de liggéey yaa leel la nooy jaaxal nag jàpp ne yow sa jaamu yàlla gi la yàlla teg àllaaxira moom liggéey sëñ diw nga yaakaar mbokk loolu nax sa bopp la lana amaluna wa lakum amalukum amma la nga xame ne mooy juróom ñetteel bi muy muy muy juróom ñetteel bi laa xujjata baynana wa baynakum ak dagg sent du am suñu diggante ñu taxaw di leen layal ngeen ñuy layal layu yàlla leer na lan ku bëgg jëfeel ku bëggul bàyyil ñu ngi noonu laa xujjata baynana baynakum mais ñu noonu doonte ne ne ñu ne aaya yi fekkul jihaad ñëw amma bi jihaad wàccee sunu borom nee na ko woo leen ci njub buñ bañee jihaatal ak ñoom juróom-ñeenteel ba mooy allahu yajmau baynana lu coow li masa bari bari yàlla danañu masa dajale ci kanamam gaa yi loolu yomb naa muñ képp kuy diingat la nga xam ne mooy diine yàlla ji sa kanam ne ko baax na rek bis na mosu ñëw ngeen daje ci kanamu yàlla bu boobaal mooy dernier débat bi ñu ngi noonu sunu borom yàlla tëjee ko nag wa ilayhi al-masir ci lépp lu yàlla lay dellu ay mbokk jullit nañu xam ne lépp dafa war a dellu ci yàlla boo delloowul sa bopp ci yàlla yi dañ la mës a delloo ci yàlla am déet su ko defee lay xel mooy nga delloo sa mbir yépp ci yàlla bala ñu lay delloo ci yàlla yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi dellu ci moom delloo ci moom seeni mbir yàlla nañu yàlla aar adduna ak alaxira te boole ñu ci mbooloo ma muy dugal ci yërmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax nit ki am na droit ñëw ci jàkka ji ci suuf feesagul moom mu dem jullee ci kaw mbokk déedéet loolu kenn du ko def balaa ñëwee ci jàkka ji dañuy xam ne sàppe yi dañ koo war a tegale su ko defee sàppe yi nekk ci gannaaw imaam tant que am nga place boo fa taxaw wuroo dem di taxaw feneen loolu it kon bu ñëwee xool jàkka ji xam nga ne sàppe yi feesagul da ngay dugg ci jàkka ji daal di julli ba pare amma nag boo bëggee déglu waxtaan moom nga yéeg fa nga yéeg kooku yaa xam mais julli gi daal moom nañuy jokkale sappe yi loolu mooy la nga xam ne moom la ñu war a def wallahu alam naam bismillah waaw ala kulli xaal jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xuuma juuti bi fa am amma bu dee ne dafa am ñu tabax seenu marché ne marché bii kat képp koo xam ne dafay ñëw di jaay si da nga bëccëg bu nekk da nga joxe nangam loole da ngay gis ne ci charte la charte la yoo xam ne nii gisuñu lenn loo xam ne nii lu koy araamal sunu maam yi boo gisoon ñu bañ juuti mooy jafe na mën ngaa dajale téeméeri juuti quatre-vingt-dix-neuf yi ay njuuj njaaj la ñuy def am déet mi ngi noonu su ko defee loolu la koy waral mooy dañuy ñëw nit ki jox leen xaalis dañ ko daggal ticket wala ila axiri ila axiri mais daal bu yemoon ci ne ñii daal ñoo jël seen alal investir tabax marché marché boobu ñoo koy garder marché boobu ñoo koy raxas marché boobu ñoo koy toppatoo lu ci yàqu ñooy defar waaye nag bala fee kenn jaay bëccëg bu ne da nga joxe téeméer su boobaa soo ñëwee jaay ca marché ba téeméer ba ngay fay duñu mën a wax ne téeméer bu ñu aay la wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon donc mën nañ yem foofu waaw très bien mi ngi noonu rawatina nag lu bëri suñu marché yi nga xam ne lañ cay am ci bénéfice yëpp day delluwaat ci njëriñ public bokk mi ngi noonu ñu ngi bàyyiloo xel yi ñun ñëpp nañu dolli xel la nga xam ne suñu mbokki gambien yi mbokk Gambi ci Sénégal la bokk tubaab yee dagge fële séddi lañu ay réew ñëw ci suñu réew def fi lu amul ci benn réew ñëw ci benn réew diqati ci la leen neex ne lii moom bokku ci waaye sunu suuf la ñoo bokki maam ñoo bokki aada ñoo bokk lépp te xam nañ ne lee nga xam ne nii ah ma nga fay raam yal na yàlla subhanahu wa taala delloo ko gannaaw tey jii lu bari ci nit ñi ñu ngi naan bu xamul il faut intervenir intervenir en Côte d'Ivoire intervenir nañ fa waaye bag boobu ma dëgëroon bopp ma nga nii di dund jabaram mi ngi dund te nee nañ la fa day ëpp na 3000 morts la nga xam ne moo fa blessé yàllaa ko xam économie bi la mu yàq ci milliards yàllaa ko xam kon ñaanuñu yàlla guerre di am Gambie ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla wëlbati xelu jàmme kuy jàppale jàmmi comme jàpp nañ ne gagné nañ ko mu dem ci jàmm yàlla jox na ko nguur ñaar fukki at ak ñaar e waaye na sant yàlla ci loolu ca yàlla jox nguur keneen koo xam ne jàmmi Sénégal ak Gambie dina ci nekk yàlla yàlla defal ñu ko wàcc jàmm ak aafiya ci bépp réew boo xam ne dafa nekk fitna rawatina sunu mbokk yi nekk Syrie wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain